kaay yi ñu xëyandool te jii ci aljuma ji dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf coronavirus ji ba tey wopp ji tey la gën a réew mi la tribune ñu ci xëtam mu jëkk ak tële moo ci mujjee am ndax jàngoro ji heure bu ñu xëyee muy gën di law ci réew mi téeméeri ka ak juróom fukk ak ñett la ñu yeewoo démb téeméeri ak juróom benn ay cas communautaire la ñu tribune seetlu ne corona bi dugg na léegi ci région yi ci Sénégal bu baax a baax ndax boo jëlee région bu Kolda rek wàññi nañu fa juróom fukki cas covid 19 libération nañu ñetti téeméeri cas coronavirus ak juróom benn fukk ci la ki wopp si dem nañu léegi ba yegg ci ñaari téeméeri dese ak ñeent fukk ak ñeent sursoi nañu ba léegi yaakaar amagul coronavirus jaa ngi gën di law ci réew mi cas communautaire yi di gën di yokk nit ñi di ci dee démb rek amaan nañu ci réew mi yeneen ñaari dese Vox Populi bind na kii di professeur Seydi fii fi toll ak ni mbir demee ci cas communautaire yi bett ko quotidien fekkat fa waxi coronavirus ji ak li mu yàq ci réew mi secteur hôtellerie bi faat ñenn ca ñi leen di suuli di sapeur pompier yi ñoom la l'observateur xëyee ubbil yéenekaay bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi taxawaay bi ñu ci am ñoom pompier yi di ko xayma bilan à mi parcours la ko tuddee ba ci bëccëgu démb gi ci ñaari téeméeri doomi aadama ak juróom-ñaar yi faatu ci réew mi ndax coronavirus ki téeméer ak juróom-ñeent fukk yaak benn rek la ñu yéenekaay bi xamal ne ñooy ñi nga xam ne sapeur pompier yi ñoo leen yóbbu ca sëggee suuli leen seenub liggéey ci mbas mi doonte ña nga cee def la man terewul brigade boole xeex bi waay matul ba di lañ daan dem ci armeel bëgg faa suuli néew askanoo jug ne du ngeen ko fi suul journal quotidien xëy na suuli ci xëta mu njëkk kàdduy Mamadou Diop Decroix ci woppi coronavirus yi ak ni ñu koy xeexee ci réew mi jàpp na ne li ñu ci mën a may jàmm moo di ay mesures yu radical ba tey ci waxtaan yu mu séq ak yu quotidien yi moom Mamadou Diop Decroix ma nga fay wax ci waxi troisième mandat bu Macky Sall bi ñuy wax Diop Decroix ne loolee Manta mi ngi wax ci Vox Populi bu ñu ci taxawul jël ci matuwaay yi war du jur jàmm mu ne déndub Afrique de l'Ouest bi coowal troisième mandat tax na mi ngi mel ni ku dëju ci volcan li muy ragal na moom Alioune moo di ñu xëy bés yëf yi kalaate bombe bu pneumatique noonee la ñu sonnal la yéenekaay xëy dikkee accident yu bari yi am ci réew te li koy jur léeg-léeg ay pneu yu bon bokk ci moom li yéenekaay bi xëy di waxtaane wax ñu ne ñàkk réglementation ci yu am ci réew mi ñeent yëpp nay wata yu bono ko jur lu juddoo cim tàgg bu naawul ay mbokkam jaaxle ci moom lii quotidien mi ngi ñuy wax ne projet de loi bi ñu adopté woon keroog ca ndajam conseil des ministres te mu jëm ci statut artistes yeeg ñi yëngu ci wàllu culture ñu bari ci ñoom dañu cee amee xel mu yari yari état bi ko def la ñuy ragal ne li muy wax gëmu ko li neexut a gëm mi ngi ci l'observateur ca Louga la xewe mu di benn waay bu nekkoon kaso keroog samedi la ñu ko libéré ca ëllëg sa di dimanche mu dem sàcc xaru nijaayam lundi ba mu delluwaat kaso lii nag ay doomi Sénégal la ñu toll ci fukk ak juróom-ñeent ñoom dañoo tàggatémbe fële ca Tunisie dañoo bëggoon a dem ca Europe àndandoo woon ak yeneen i seen i yu bokk ci yeneen i kër réew seen gaal këpp ci jamono ji sax ñoom ñoo ngi toltalaal yi ñu ni ñenn ci ñoom sax dañoo am wopp ji di euh, Covid 19. tekki ndombo tànk gi président conseil d'administration bu l'hôpital Dalal Jàmm tekki ndombo tànkam du am benn njeexital ci doxalinu googu këru ko wér gi yaram. wax lu ni mel di directrice des établissements de santé daa ngeen ko dégg moom docteur euh, Fatou Mbaye Sylla ci biir euh, xibaar yi. ca service des mines ak pëccëxoo moom moo fa am ñi nga xam ne ñoom ñoo di chauffeur ñi ña fa demoon daal kenn xamul foo wéer sa ko wet ndax euh, nee ñu daal mbir ma pëccëxoo gañ ca gis daal tax na ñoo ngay artu ñii di waa direction ba ngir ñu soppali doxalin mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ni tut ñu indi ci ay faram-fàcce Alioune Ba moom moo nekk ci euh, machine bi gannaaw bu ñu leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoog rajo Futur Média 94 point 0 dañ koy dooree ak waa plateforme aar lu ñu bokk ñoo lànk ak doy na euh, ñoom nag ni ki tey jii euh, bëgg nañoo def ab déclaration bu am solo bu 10 heures tegalee fanweeri simili ñu bëgg ko amal ci makkaanuk FRAPP ci ngoon gi nag ni ki tey jii jàpp nañu bu ñetti waxtu jotee ñoom ñu amal ab manifester ngir ñaawlu yi nga xam ni rek moom mooy mooy euh, étudiants yi nga xam ni kenn euh, dañ leen a orienté ci privé bi ak ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca université virtuelle du Sénégal waaye ci jamono ji nag xamaguñu ndax euh, boobu manifeste kilifa yi autorisé guñu ko ba léegi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. ay doomi yaadama yu am gaañu gaañu ñenn ca ñoom ñu daal leen eh, tekki loxo di ay cantakun lool nag eh, di la dukkee ca xeexoo ba doxoon eh, diggante yenn ci ay taalibe yi saaliwu Saliou Thioune ak yeneen ñoo xam ne ni ñoo nga fare ca soxna Aïda Diallo affrontement yi nag mi ngi am ni ki talaata ci guddi ca janatu foofu nga xam ni moom moo nekkoon makkaanuk ka nga xam ni moom moo di Cheikh Béthio Thioune leeral yëg ma Diop jàmmaarloo ci diggante ay taalibe Serigne Saliou Thioune ak soxna Aïda Diallo fii ci janatu ni ngi talaata ginnaaw boobe nag ba léegi ñaari camp yooyu duñu laalante benn yoon ci diwaan boobe lu ñu mel moo tax Youssou Mboup jiite ay taalibe yu Serigne Saliou Thioune di naxar lu ñu mel ginnaaw bi ñu xëyee tey ñu teg ay loxo ñenn ci ñoom. parce que gi jàllee ba léegi amatuñu jàmm ñun coow lu mujj lii gone ak gone ndax daaray gone yi lañ ko tuddee daaray Lamine Mbaye ñoo doon def daara dend ak kër ñooñu ni kooku moo ñëw fekk xale yi taxaw di leen saaga ndey dans premier temps xale yi noppi mais bi mu ko dollee ni leen yéen doo leen ay góor sax am ci ku riposté coow am fa ñu xeex blessé yi ñaar lañu ci ñi ma xam kenn ki ci bopp la gaañu kenn ki ci loxo ngir bañ nag jafe-jafe bi di wëy ci diwaan boobee moo tax ñu ngi sàkku ci kilifa dëkk bi mu daal ci addu balaa mbir mi di ëppi loxo ñoo ngi ñaan kilifa yi su ma nee kilifa yi xam nañ Tuubaa ñi fi kilifa ñu dimbali ñu ñu dimbali dañuy ñaan dimbal ñaxtuwuñu jooytuwuñu te billaahi duñu xeex duñu xuloo ndax ko ëpp boo xeexee blessure yu ëpp nii dem fi li fi xam yëpp am na ci loo xam ne xajul ci rajo kon ñun ñoo ngi ñaan gaaw ñëw dimbali ñu lii ñu saafara ko. jàmmarloo yooyu amoon ci seen diggante mu am ay blessé ak ñoo xam ne ci kaawu Serigne Saliou Thioune lañu bokk ñu teg loxo jamono jii ba ñu ngi nekk ci commissariat bu Jannato waaye nag suñu jokkoo ak kilifa yi yor wàllum yoon ñu ngi xamal ni waa kër Soxna Aïda jàlloo dañu bind plainte waaye itam joxe certificat médical loolee moo tax mbir mi mujj ci seeni loxo ma Diop fii ci Touba. RFM. jugee ca Touba Jabali ca Njàmbur foofa marché central bu Louga ak lakk moom moo fa jip loolu nag nekk ci jamono ji xamaguñu lan moo waral goog ak lakk waaye kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ngànk diwaan ba yéen joxoñ baaraam rek mooy la ñu duppee ay branchement clandestin moom mooy euh, xëccal courant gi nga xam ni moom la commerçant yi di dëkkee te nee nañ loolu nekk na loo xam ni mën naa jur jëya Abraham Paul Pouy dangay branché fii jox sa morom sa à côté mu branché. mairie bu dëkk bi lu muy ñaaw njortu mooy branchement yi nga xam ne ku nekk xëccee fu ne courant moo indi lakk-lakk bi bile ci pàcc marché bi nga xam ne nag moo doon lakk démb nag président commission àll et marché Birahim di ñu xamal ne démb rek lañ doon réinstallé waat courant bi waaye lu ñu fa gis ci ay fil ay branchement yoo xam ne jaarul yoon bëri na lool. bu électricien Senelec bi defar lool sama kanam lépp normal courant boo koy ci sa place waroo xëccal keneen waroo dem di xëcc ci éclairage public compteur marché bi. pour xeetu jéey yi bañ a amaat fii ci marché wu Louga yi nag mairie bi di woo ku nekk am ab responsabilité bu mët sëkk di Dieng moom mooy secrétaire municipal. di ñaan daal vraiment euh, bu ci jógee ñu ñu gën cee taxaw muy délégué marché yi di maire yi effectivement euh, di autorités yi tamit ñu ñu gën a sensibiliser vraiment suñu mbokk commerçant yi parce que yu mel ni ñu xam ni buñ leen di ci wàllu sécurité te ñu xam ne ñoom nañ koy defal d'abord. ci ñu seen alal ci lakk-lakk gi faw ñu taaxirlu rek tuuti ngir mairie bi mën leen a jàppale. mënuñu leen recaser ndax amuñu beneen site bu leen mën a recaser ba pare ku nekk defaraat sa place. daaw bi waa Medina Sara fële lakkoon monsieur ñëwoon na personnellement jàppale leen ku ci nekk ak enveloppe équipe bi vraiment ña ko war a dox daañ ko dox pour vraiment ñëw seen wet defal leen jàppale leen vraiment taxawu leen. ci fàttali rek lakk bi nga xam ne am na démb ci marché central bu Louga mam untu si la nag lu toll ci ñaari fukki cantine ak juróom-ñeenti taabal dem nañu ci safara si mu nekkoon Abraham Paul Puy Louga RFM. maa leen ko doon wax ci boppu xibaar yi lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti doomi Sénégal ñoom ñoo tàggatémbe ca Tunisie moo tax euh, ñuy euh, bëgg ñu daal di leen wàllu ñoom nag ñoo bëggoon a dem ca Europe àndandoog lu toll ci juróom-benn fukk ak benn ci yeneen doomi aadama yu fare ci yeneen i réew seenu ko gaal moom moo suux foofa ca waaxuk Tunisie ñu ni ca ñoom sax am na yenn cas coronavirus yoo xam ne nii daal daal dinañ ko fay euh, détecté. ci loola la ñu bëgg moom moo ñu jàppale leen ba ñu ñibbisi fii ci seenum réew di Sénégal témoignage yu kenn ca ñoom Maysa Gueye lay wuyoo ci micro Alaaji Assane Gueye ñu jógee waaxuli bi doon dem Europe il se trouve que suñu gaal am problème si géej gi yàlla def ñu repêché ñu la marine marine tunisien bi repêché ñu yóbbu ñu Tunisie bi ñu yóbboo depuis vendredi jour bisu id bi bisu tabaski lañ ñu repêché bi ñu repêché yàlla si def sutura ñu ngi si sant yàlla bu baax nag kenn deew si mais daal yàlla moo ko nam moo noonu ñu dem bi ñu demee nekk confinement respecté confinement bi les autorités tunisiens ak yi ñu dugal ñu confinement pour quatorze jours bi ñu dugalee confinement pour quatorze jours tey la quatorzième jour bi soixante dix personne lañ lépp quatre cinq femmes trois enfants un bébé ñun ñëpp soixante dix personnes lañ bi ñu fa nekkee nag à ce moment ba léegi ba quatorzième jour bi ñu defee dañuy libéré ils sont venus ñu ñëw ni ñu yaa cinq cas positifs espacé de cinq jours une semaine presque lañ ñëwatuñ fii boobu lañ ñu fi bàyyi amuñu dàll amuñu lekk bu baax amuñu presque dëkkuwaay bi daal baax na baax na mais li des lépp lépp lépp ay problème la problème la muy lekk bi muy problème de santé am nañ sax un de nos frères boo xam ni feebaroon nag feebar bu xaw a metti il a fallu que ñu bëggoon def grève de fin ñu ñëw jël ko mais ñu defeen dañ ko yóbbu hôpital ndekk yóbbuñ ko dañ ko faire le tour après ñëwaat. ak RFM kumpa jeex directrice bi ñu dénk établissement de santé di bërëbu euh, paju yi daal di yëkkati ay kàddu jëm ci tekki ndombo tànk gi nga xam ni professeur Papa Touré tekki na ko ndombo tànkam ci pop pop Euh, président conseil d'administration bu l'hôpital Dalal Jàmm moom docteur Fatou Mbaye euh, Sylla euh, gis ni naam ki nga xam ni moom moo tekki ndombo tànkam nekk na ko xarañ lool waaye juge gëm fu jóge du am gennuk njeexital ci doxalinuk lii di l'hôpital bi rawatina ci jamono ji nga xam ni moom la ñuy xeex mbas mi di Covid 19 dañ koy déglu moom docteur Fatou mbay Sylla ci micro Jo Marone démission nag la maanaam moom mag la kilifa la responsable wax na ko tam moo ko xam du ma ci du ma ko commentaire euh, am na ci droit bu baax dañ ko koy nangul donc li euh, dañuy jël ak ministre de la santé de l'action def nga xam ne aussi moom mooy war a garam waru garam conseil d'administration bi di continuer de fonctionner correctement mais wax dëgg yàlla dañ ko koy nangul duñ ci commentaire mais démission boobu du am lu mu wàññi ci seen xeex mbas mi noonu du ko wàññi parce que conseil d' administration nekkul koo xam ne dafa dugal loxoom directement ci xeexu mbas mi dëgg la ñoom ñooy toog di saytu hôpital bi muy def di taxawu directeur bi di ko jàppale di ko xayma aussi di ko gindi ci li muy liggéey loolu am na solo waaye tax amul relation bu direct ak mbas mi président bu démissionné aussi texte yi am na lu mu prévoir que mu nekk président que mu nekk vice président mu nekk membre am na texte lu mu prévoir ba nga xam ne lu teree conseil d' administration bi gën a fonctionner normalement loolu aussi dañ action sociale di waat beneen décret pour ay nomination membre du conseil d' administration bi. mais li tax mu démissionné foofu ca l'hôpital bokk na ci mbirum jumtuwaay matériel yooyu kooku mérité wuloon ñu takkal ko médaille. <laughs> takkal médaille bon li mu wax dañ ko kay nangul kilifa la responsable la. te borom xam-xam la su lu muy wax ci démission bi aussi dañ ko koy nangul respecté ko wax rek mooy dalal jàmm dëgg la hôpital la boo xam ne bi ñëpp yokk nañ ci ñëpp yokk nañ ci yaakaar bu am solo te Dalal Jàmm dëgg la depuis ay at yàlla ñu fexe ba projet bi pare naam mi ñu commencé fonctionner ndax am na ay services yu commencé di dox. addu jëmle ci wàllu ko njàng meek njàngale mi ak examen yi ci département bu Pikine ak sa Guédiawaye foofa lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay junnik candidat lañ ca jàpp ñu war leen tas ci lu toll ci ñaari téeméer ak ñeen fukk ak ñeent ci ay centre d'examen préfet bu Pikine bi nga xam ni moom moo jiite comité départemental de développement jëm ci wàllu ko CFE BFM ak baccalauréat di xam ne ni bépp matuwaay bu ñu waroon a jël jël nañ ko ngir examen yooyu am ci anam yu mucc ayib ndongo inspection d' académie bu Pikine Guédiawaye di xayma nag li ko candidat yi nga xamante ni ñoo war a jàll ci l' examen scolaire 2020 yi seeni ko xayma jàll nag lu yemook juróom-ñaar fukki junni ak juróom-ñaar ci ay candidat yu nekk diggante Pikine ak Guédiawaye Idrissa Gaye mooy secrétaire général bu IA bu Pikine Guédiawaye bu ñu jëlee CFA IA Pikine Guédiawaye ñu ngi am 31 yu war a ci 122 ñu jëlee BFM IA Pikine Guédiawaye am nañ 25 896 candidats ñu 90 centres bu dee baccalauréat bi IAPRIM koy jaay am 20 ñu war a composé ci 32 ngir fexe organiser examen yi ci anam gu mucc ay préfet bu Pikine ni dana ci xar tànku tubéyam moom Moustapha Ndiaye ni mesure barrière nag dana fexe ba centre bu ci nekk ñu daal di koy fàggandiku. moment examen du moment boo xam ne nii élève bi dafa war a dem wala enseignant bi dem fa pour jëlee fa feebar moo tax lépp lu ñu mun a def ci moyen pour protéger élèves bi dinañ Pikine nii te l'école yi nga xamante ni fa la ndimbal li nguur gi jagleeloon nag njaboot yi seen loxo jotul seen ginnaaw ci jamonoy mbas bi nekk ba léegi dana fexe nuñ ko fa jëlee balaa bisu examen yi. waaw loolu inspecteur bi signalé na ko. dafa def tour xam ne fii centre d'examen la te ba léegi ñetti saal ñu ngi fa denc ay ceeb ñu ngi nekk aussi ci jamono nawet. IEF yi def nañu benn premier tour xool centre yi nga xam ne nii ñoo nar a indi jafe-jafe rek ñu délocaliser la. ci réew mi war nga këpp inspection d'académie bu Pikine Guédiawaye doon iyaa nag bi ëpp lim ci ay candidat gannaaw inspection d'académie académie bu Thiès Nongaka Pikine rajo Futur Média ñi ñoom ay tuut tànk lañu di ay gone nekk ci